Kemarin itu Vigilaran SM. Abonen, teklik di post notifikasinya. Khar suñuy vidéo. Jërëjëf. dal len ak jàmm mbokki internet yi am nañ bëkté bu baaxa baax sa suñu di and ak yeen bu fekké ne ya ngi doog dab ñoo ngi lay ñaan nga abonné activé cloche de notification bi ndax lepp luñ duggal nga bokku ci ñu koy njëkk jot waye bu len faté di aimer vidéo yi mbokk yi dal len ak jàmm ñuy wax ci image yi ngeen di gis ni day vidéo yoo xamanteni ni yu daw yaram la image yoo xamanteni ni tamit yu kéemaane lool la nekk ay maire ay soxna yoo xamanteni ñu ngi fekk baax fi nga xamanteni ni moo di Casamance Casamance googee nee ne ki fa dëkk di nga xamanteni ni mooy président Pastef bii di Ousmane Sonko moom moom nga xamanteni ni jamono ji ñu ko denc si kaso bi nga xamanteni ni moo féete foofu si sufi xotaan ginnaaw loolee mu defoon nga xamanteni ni mooy grève de la faim ba mujjé hôpital principal ñoñe nak ngeen di gis nonu di nak li nga xamanteni moy japp gi ñu japp président Ousmane Sonko ngeen gis nonu yalla ji di taw taw bu metti lool waye mel nit ñi ku ko yegul sax seen yaram ndax ñu ngi yor seeni leket di teug di fecci mu nekk loo xamanteni nak dañuy wone li nga xamanteni moy li leen metti ci seen waa ji nga xamanteni mom lañ japp ñom ñi nak di wuyo nenañu manam ñoy yaay ki nga xamanteni mooy président Ousmane Sonko di njiital ki nga xamante ni mooy Pastef Pastef yi sax mën nañ ne sax jamono ji ex Pastef lañ koy mën a woowee ndax ki nga xamante ni mooy ministre intérieur dagoo tas